asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif ñëw nañ fii ci bopp tabaarakallaa ci ubbite jumaa bi nga xamante ni si fa tabaarakallaahu tey kilifa yëpp ah ñoo ngi fii tey président de la république El Hadji Macky mi ngi nii ci yoon wi ñu koy teeru fa tabaarakallaahu Cerno Ahmed Sall Medina Gunaas Cerno Ahmed Tidiane Ba Medina Gunaas fa xalifa bi moom it ñëpp ñu ngi koy teeru ndax mi ngi nii fa war a génn moom moo war a ubbi jumaa ji dalal kilifa yëpp waaye nag fii ñu nekk nii fa tabaarakallaahu dañoo taxaw ak Zeydi ndax. loo gis rek barab bu ne ak ka ko gën a xam moom nag moo nu gën a xam fii kon nag dañ koy bàyyee kàddu gi rek fa tabaarakallaahu dalal ko ndax moom mi ngi yor ci biir Kabir TV benn émission bu nuy wax tekku saanu Cheikh Al Hadj Omar Foutiyu di firi téere maam Cheikh Al Hadj fuuti Foutiyu bu ñuy wax safinatu saada loolu nag kooku kon xam nga ni boroom xam-xam la waaye nag fii nag di këram nag mu miin fi lool. moo tax ñu ñëw seet si ko moo xam fu mu nuy jaare rek ci kilifa yi ñu jaar fa. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah suñu nijaay Abdullahi Mbaye ñu ngi lay ziar. macha allah ni ko waxee di am mbégte bu baax ci besu tay bi muy le trois tay bi di aljuma bi nga xam ne moom la ñu fas yéene ubbi juma bi nga xam ne mooy juma bi nga xam ne moom moo nekk fii ci ndakaaru ci bopp bi nga xam ne ceerno alhaji mama saidu radiallahu taala anhu moom moo ko sancoon sababoon ko ba yàlla dogal yàlla mottali ko ci doomam bi di xalifaam ceerno ahmad tijaani ba atalallahu xayatahu wa xafizahu wa aliya yal na yàlla guddal fanam wéral cëram ah, yal na yàlla sàmm ko ba naal yi waajuram yi naaloon yëpp yàlla motale ko ci moom yàlla mën na ko wa ma zalika ala llahi bi aziz allahu rabbi tonton Ablaye ni ko waxe tey dañoo fas yéene ubbi jumaa ji ci taxawaayu xalifa bi teewaayam ak président son excellence Macky Sall ak mbooleem gouvernement bi yëpp incha allahu rabbi nit ñi jóge nañu fu ne partout dans le monde am nañu léegi léegi maa ngi nuyante ñi nga xam ne dañoo jóge France ak États-Unis samay wëllëre yoo xam ne bés bi moo leen indi am ay délégation ak feneen i feneen i feneen Sénégal amul benn gox bu des lu dul teew nañu fii ci ubbite jumaa ji macha allah loolu nag dama ne ndam la sant yàlla bu rëy ci Sénégal sant yàlla bu ci àddina la ndam la waaye sant yàlla bu rëy ci tariqa Seydi Ahmada Tijaani radiyallahu taala anhu ah di ñaan nag yàlla na ko xalifa bi muurloo di ñaan incha allahu rabbi ah lii ñuy tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañ ko yàlla may ñu mottale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin incha allah lépp lu fi am ci événement bépp kilifa diine bu ñu war a waxal incha allah ci Kabir TV dinañ ko wane ñëpp dinañ ko seetaan dara du leen ump incha allahu taala baay Ablaay waaw defe naa ni eh, incha allah loolu lépp dinañ ko jël te it bépp waxtaan boo xamante ni si kilifa yi war nañ ko fee waxtaanee dinañ ko jël moom it incha allah képp bépp kilifa bu mu fi indi mu war a wax ci bis bii moo nu gën a xam kër gi waaye dafa am ko baax muy Thierno Youssou nga xamante ni si Thierno si Cissokho fa tabaarakallaa di nit ku baax te nun kat Medina fii bu ñëpp xamee daaka di fa dem Thierno Youssou la. ñu xam la ci ginnaawam ngay ànd ak moom guddeeg bëccëg waaye fa tabaarakallaahu ni nga miine Thierno Youssou noonu nga miine kër gi waaye noonu nga miine njabootu Cheikh na Ahmed Tijani ñu xam sa taxawaay fa tabaarakallaahu defe naa ni kon incha allahu képp koo xamante ni si war naa wax ci Kabir TV rek kàddu gaa ngi noonu ci yow léegi nag dañ lay ñaan rek nii nga waxe ci wolof ñu lay ñaan nga waxe kon noonu ci pulaar ndax Kabir TV. international la addina bi yëpp a ngi koy déglu waa France waa Italie ñëpp rek bàyyiwunu kenn te fa tabaarakallaahu yaa nga ci Amérique di xaar lii. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala caggal yettude allah e julde e allah sallah alih sallam on hono no kawmen abdoullahi mbawi wiiri ni Euh, hannde ko ñalawma mawɗo ñalawma l'islam ñalawma sénégal ñalawma adina kono ko ñalawma lawol cheikh seydi ahmad tidiani ceerno saidou ceerno alhaji mamadou saidou ko kanko allah hoddirno o darni ka jama e fondation makko hannde allah timmitino ɗum e junngo halifa makko ɓiyi ko ahmad tidiani ba madina gounas e dendagal almuɓɓe e, e, e, e dendagal Euh, yiɗɓe kamɓe darni ɗum ɗo hannde hannde noon inchallah juma ka uddite le 3 aljuma o hannde inchallahu rabbi amin annoyi hollude on kala ko kewiɗo e nokku o e juma ngol e hadratul juma o oɗon nganndi président makky sall omo faɗa omona ara omona e laawol oɗon nganndi kadi ceerno tidiani ari omon ɗo e denndaangal euh, miñiraaɓe e ɓesngu fof inchallahu rabbi enen jaakori e ma allah wallu en no jiɗirɗen ni allah newnana en noon ya barke nelaɗo allah sallllahu allah um, hokku en ɗo e ɓoyde kala ko jiɗɗen hollirde ɗo e halifaɓe e mawɓe inchallahu rabbi min kollir ha yimɓe foof belto e ɗo e télé tv a kon nag alhamdoulillah liñ ci bëggoon lépp defe naa defal nga nu feuille bi fi nu a jaar fa tabarakallahu l'islam amatina ndam cheikh na Ahmed Tidiane Chérif amati na ndam waaye sunu maam ju baax ja maam Cheikh Al Hadj Omar Fouti yu nga xam ni mooy lépp amati na ndam suñu maam Seydil Hadji Malick noonu la ñuy profité di ziar xalifa bi euh, Serigne Babacar Sy Mansour waaye noonu la ñuy ziare Thierno Basir Mountaga Tall Cheikh Al Hadj Omar Fouti yu waaye ñi ngi gërëm bu baax ki nga xam ni moo waral lii. Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Tall Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Tall Maki Mountaga Tall Cheikh Al Hadj Omar Fouti yu fa tabaarakallaahu ndax ku ko xam rek xam ko Kabir Sène fa tabaarakallaahu kon nag mbir mi yëpp moom la léegi nag ñi ngi sant Kabir di ko gërëm ci taxawaayam ndax nii la ko bëggee moom moo wax ni fa tabaarakallaahu fépp fi lislaam bi xewe na fi na fa Kabir TV dem defe naa ni tey nag lislaam amati na ndam macha allah lislaam ma ci na ndam ndax ni mu ko waxee Mouhamadul Kabir Sène gis ngeen barki Dembo Ndiaye ñi ngi fële ci Omar yéen tey ñëw nañu fii ci boppu ci Daaka Medina Gounass ci ubbite jumaa ji macha allah moom loolu rek moo ko ñor lépp luy yëkkati tariqa bi ak lépp luy yëkkati kër Cheikh Omar ma nga ca ko waxee fii kër Cheikh Hadj Omar la. ndax Thierno Alhaji Mamadou Saïd Wasilam di Thierno Baro kan mooy sëriñam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu kuy sëriñu Cheikh El Hadj Malick Cheikh El kon ni ko waxee noonu rek la fii kër Cheikh Omar la kër Seydil Hadj Malick la. gis ngeen ah, am na jamono yëngu-yëngu am fi ci réew mi euh, ñu defe ne lu ne dina xew Thierno Ahmed Tidiane Ba génn ne xale bu judd bu gën a tuuti bu juddoo ci kër Seydi Hadji Malick tey kooku la ñuy mooy suñu sëriñ mooy suñu lépp mooy suñu wasila ñun ñoo nekk xalifa général kër Cheikh Hadji Malick mi ngi fi ñoom ñooy lépp xale bi fa gën a tuuti bu fa juddoo kooku mooy suñu sëriñ ngir gëm Cheikh Hadji Malick bëgg ko boo dégloo sax seen ñaanu wasifa yi Cheikh Hadji Malick lañ ciy tudd ak euh, euh, Cheikh Hadji Omar Ibnu Saïdine nga xam ne kon ñoom ñu démb te ñi ngi topp wasila bi bu baax fonk ko di ko toppatoo am nañu sax ziar boo xam ne annuel la dañ koy def Tiwaawoon ñoom at bu nekk gis nañu Cerama a ba mujj dund Serigne Abdoul Aziz ziar ba mu fa defoon nit ñi jóge partout dans le monde ànd ak moom ñu dem ziar kon ñoom tariqa bi macha allah ñanga ca fañ ca war a ne ña nga jaar fa ñu war a jaar ñanga nga taxaw fa ñu war a taxaw ba yàlla defal leen ndam bu mel ni ci lislaam ak tariqa Seydi Ahmad Tidiane. ah Zeydi jërëjëf fa tabarakallah liñ ci bëggoon lépp defal nga nu ko ah nii rek la tey daal incha allah lépp lépp lépp lu fi xew rek Kabir TV dana ko génne incha allah dafa mel ni nag taalibe yëpp ñëw nañ waaw amul fenn benn këru këru këru tariqa Cheikh na Ahmed Tidiane bu nekk fii ci réew mi cee ñëwoo njabootu maam Seydil Hadji Malick ñoom ñëpp ñi gi fi kon ni nga ko waxee noonu la amee waaye dañ lay bàyyi ndax yaa nga nee di dem ci kilifa yi war leen a recevoir war a dellu siwaat te bëgg nañ képp ku fi kilifa ñu dëpp ko sunu micro mu waxtaanal ñu ci bis bii kon ñu bàyyi la ba ci kanam lépp dinañ ko jël incha allah asalaamaaleykum mbokki àddina bi bokki jullit yi tabaarakallaahu ku dugg fii rek xam ni lislaam amatina ndam ku dugg fii di nga xam ni lislaam amatina ndam tabaarakallaahu cheikh na Ahmed Tidiane Chérif amatina ndam waaye maam cheikh Alxaaji Omar Fuutiyu mi nga xamante ni si mooy lépp amati na ndam waaye ku tudd maam Cheikh Al Hadj Omar Foutiyu ah di nag maam Seydi El Hadj defe naa ni njabootam yëpp tey ñu ngi ci jumaa ji fii ci bop ñu war ko ubbi nag tabaarakallaahu Cerno Ahmed Tijani Ba xalif général Medina Gunaas ñi ngi koy teeru mi ngi nii fa tabaarakallaahu war a dugg si ñi ngi son excellence président de la république Macky Sall tabaarakallaa moom it mi ngi dugg si mi ngi ñëw a ah, ku xool lii nag di nga xam ni Sénégal am na ndam waaye nag tariqa Cheikh na Ahmed Tijani am na ndam Medina Gunaas mag ñi sampoon lii am nañ ndam waaye gox bii ñu ko defee ci bopp tabaarakallaahu tey gis nañ ci seen bopp defe naa ni amul fenn fu des. tabaarakallaahu ku tudd Cheikh El Hadj Omar Fouti tudd ko mu Cerno Basiru Taal fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñoo ngi fi tey tabaarakala Cerno Madani njabootam yëpp ñoo ngi fii tey sëriñ si Sy Mansour alxalifa njabootam yëpp ñoo ngi fi tey fa tabaarakallaahu njabootu lislaam bi daal kenn desul waa kër Cheikh Ahmed Tidiane yaa nga lële ca kanam kon nag fa tabaarakallaahu lii daal rëy na yal na yàlla yeggale ko ci jàmm waaye ñi ngi santati bu baax Kabir Sène fa tabaarakallaahu Mouhamed Kabir moom diine rek moo ko ñor tariqa bi rek moo ko ñor nee na fépp fuy këru diine sit bii na fa dem jël ko loolu moo waral ñu ñëw fi fa tabarakallahu jumaa mubaarak bi nga xam ni dañ koy def tey fii lañ ko def see tabarakallahu tey daal l'islam am na ndam incha allah bu nu jullee jumaa ba pare danañ song xadaratu jumaa bi lépp danañ leen ko wan suñu paree mbooleem kilifa koo xamante ni si war na cee wax dana wax zeydi mi ngi fi dina wax ci pulaar ndax lii àddina yëpp dañ koy seetaan waaw pulaar yaa nga Amérique ña nga France ña nga fépp fépp fu doomu jullit nekk rawatina nga bokk kër Cheikh na Tidiane incha allah lii sa ndam la kon nag incha allah Zeydi mi ngi ñëw su ñëwee lépp dina ko wax ci pulaar su ko defee àddina bi ñëpp jot ko kon nag incha allah ñu jël rek li fi des ci liggéey bi waaye sëriñ bii ma taxawal fa tabaarakallaahu dama ko bëgg laaj tuuti rek. ci mbiru jumaa ji. Euh, alhamdulilah rabil alamin tur bi nan la. Euh, ba. Lamine dama bëgg nga waxal ma nag ci pulaar. waaw dama bëgg nga waxal ma ci pulaar. Euh, alhamdulilah rabil alamin hono fondation dental madina gounas mhm. hande machallah kala ko soyintono hande yiyama yiyama e banggueji emo ganduɗa alhaji mamadou seydou radiallahu anhu ko ɗum ɗo miijotono mhm. ɗum ɗo miijotono hande hande o cheikhana ahmad tidiani radiallahu anhu kam fo hannde ɓe beltima alhaji mamadou saydou radiallahu anhu ko guiɗo alhaji malik si wonno mhm. alhaji mamadou saydou ko guiɗo cheikh oumar al fouti wonno mhm. alhaji alhaji mamadou saydou ko guiɗo afrique wonno surtout ma noon hannde ceerno mahamadoul mansou bara e ceerno amadou baro hannde soɓe lelito machallah hannde maɓe belto hannde sénégal fof weltima oɓe ñaago duwawa leydi ndi fof deeƴa machallah hono men halifa o hono ceerno amadou tidiane ba omo ɗoyede hono ceerno mahamadoul basir muntaga ɗa ha cheikh oumar al foutiyu mugi si bi ɓe allah délégation bu takku ley yonne bispi bisam la moom moo ko moom a ah, bu ñu fàtte nag tamit a ah, les famille Tivaouane kenn du des xalifa bi Moussa macha allah bii maam Abdoul Aziz si bu ko fàtte moo tegoon xeer bu njëkk bi ànd ak alhaji moom a Seydou loolu lu yàgg la jumaa ji maam Abdoul Aziz Sy ak Alhaji Mama Seydi ñoo teg xeer bu njëkk bi. waaw danga wax lu am solo ci maam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy loolu nag dama bëgg ñu taxaw fa tuuti danga nga ni jumaa ji maam Cheikh Alhaji Omar fuuti moo ñëwoon teg première pierre bi kum ko àndaloon. ah mu ngi ko àndaloon Alhaji Mama Seydi Cheikh Mahamadul Mansour Baro ak kilifa diini fi nekk yëpp macha allah kon nag sëñ Abdoul Aziz junior si la bokkoon rahmatulah aleyhi tey nag suñu yaram tey dina daw. koo xam ne tey dara général de la famille omarienne yónnee fii délégation waa Tiwaawoon ñëw waa Kaolack ñëw loolu mooy Sénégal dëkk bi kenn mënu ko xar ñaar benn bopp la asadu an laa ilaaha illallaah la ñu wax sénégalais yëpp benn lañu tey Ceerno Ahmad Tidiane Ba kontaan na kon bu ñu fàtte nag borom bis bi alhaji Momadou Seydou ak Thierno Amadou Baro bu mbuur macha allah fu ñu tëdd incha allah dañuy kontaan incha allah tamit soo xoolee tamit réew mi tey réew mi tey ñëpp kontaan nañu benn baat la bu naas nekk benn réew mi nekk benn kon nag suñu waxee tarixa fii Cheikh Oumar Al Foutiyou kan moo ko yaatal ñu ne ah. Abdoul Aziz Sy war Alpha ma yaro loolu nag bu ñu ko fàttee nag alhaji ma Seydou fa la jëlee fa la jëlee wirdu bi si famille alhaji Malick la ko jëlee lool nag wasila bi soo xoolee si biir wajiba bi yëpp da nga si silsil bi dafa yaatu kon nag alhaji ma Seydou bu muy dund rahmatullahi alayhi amul ku muy nooyee kudul dul alhaji eh, Malick Sy wala sëñ Babacar si musul ñëw dakaar fekkee demul Tiwaawoon. ah loolu nga wax nag rëy na moo taxit dafa mel ni tabaarakallaa njabootu Seydi Hadji Malick yëpp a ngi fi fees dell noonu nga ko waxee noonu la demee waaye lislaam tey am na ndam ndax Baye Abdoulahi ñas ku ko tudd tuddu njabootam gu baax ga cheikhul islaam kon nag fa tabaarakallaa njabootam yëpp ñi ngi fi mbir mi daal dafa mel ni daal lislaam moo am ndam rek. ah lislaam moo am ndam. soo xoolee seexal lislaam si boppam bu waa Kaolack yónn na fi délégation sëñ Abdou Khadir Zeylani yónn na fi délégation lu gën a gàttal tamit si ni xalifa bi boo xam ne moo toogal tey mouridisme euh, murid ñëpp yónn na fi délégation bis bi suñu bis la tey réew mi. waaw Cheikh Mountakha mbake moom it yónnee yónnee na fi délégation. délégation bu takku takku takku gisal xalifa bi barki démb ñu ngi fii si jotaay bi. maa ngi dégg léegi ñu ni parking yi nga xam dañ koo tëjoon ca Masaalikul Jinaan sëriñ bi joxe na ndigal neen nañ ko ubbi pour oto ya dem gaare ji fa loolu rafet na de. wallaay macha allah loolu tamit day loolu nag day waral nag diina ji benn la fu ñu jëm si yàlla fu ñu jëm si yonante bi wuute ñu fenn ñaar ràq yi ñoo koy bokk julli yi ñoo koy bokk kon nag dañu booloo nekk benn Afrique Sénégal moo ko yore a Hadj Malick moo ko wax. Sëriñ Seexul Xadim moo ko wax Abdul Xaadir Jilaani moo ko wax loolu mooy Sénégal loolu mooy Afrique. kon nag incha allah ñu déglu rek xaar tuuti xadaratu jumaa bi incha allah bu kilifa yi jàllee rek xadara bi moo ciy tegu incha allah lépp loo xamante ni si am na fii ci barab bi rek incha allah dinañ leen ko indil jërë ngeen jëf. ah ki nga xamante ni si nag mooy sunu buntu fii muy Zeydi mi li ndax moom fa tabaarakallaahu Cheikh Kabir Sène mu baax mi. dafa ni dem leen seeti Zeydi ndax miin na fa xam na njaboot gi waaye bu nu ñëwee fii lépp lu ñu jafe woon Zeydi mii yombal na ko dugg nañ ci biir kër xalifa bi jël ko dugg nañ ci cour bi jël ko dugg nañ ci jumaa ji jël ko lépp yow la kon nag dama yaakaar ni relation bi nga am ak ñoom moo feeñ. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah tonton Abdallah ñu ngi lay ziar Mbaye macha allah lii am na solo bésu mbégte la bésu lislaam la bés la boo xam ne Sénégal yëpp kontaan nañu rawatina waa Ndakaaru lii sens u Ndakaaru la. Ndakaaru am nañu sens bu rëy sens bu mag sens boo xam ne daal kenn xamul nu mu toll. jumaa ju mel nii Ceerno Alhaji Mamadou Saïdou naaloon ko doomam bu tedd bi di Ceerno Ahmad Tidiane Ba Madina Gosa ad ataalallahu hayatahu wa hafizahu wa aliya yal na yàlla guddal fanam sàmm ko te wéral ay cëram yàlla dogal lii mottalee ci loxoom tey ñu war ubbi fii ci Ndakaaru ci bopp. aduna bi yëpp ñu ngi fi tey France Italie Amérique États-Unis rawatina dëkku Afrique yi ñu wër ba Gabon ba Congo Brazzaville ñëpp ñu ngi fi ndax lan ndax ubbite juma ji ñuy ubbi fii ci bërëb bii muy bërëb boo xam ne macha allah am na taarix histoire bi ñu bari xam nañ ko ah ni ko Thierno jotee. ba mu samp ko ba 1982 mooy première pose pierre bi Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh sa sëriñ moo ci njëkk dugal 100000 francs moo ci njëkk joxe 100000 francs euh, loolu moo tax tey jumaa ji mel nii loolu nag muy mbégte l'islam mbégte tarixa tijaan waaye di ñaanal yàlla ci Rahma Tidiane Ba liggéeyam rafet na waaye nag ñu ñaanal président de la république Macky Sall moom ci ayam la motee aussi moom moo jàppale sëriñ bi ci taxawaay te taxawu na barab ba yëf mel nii moom moo taxaw taxawu na barab bi mel nii bërëb bi bu melee nii yàlla taxawaayam la yàlla na yàlla fay ko sàmm ko faj ay aajoom zahiran wa baatinan yàlla na yàlla dëgëral ko lii mu defal ni lislaam defal ko tarixa Seydi Ahmad Tidiane yàlla gis na ko président Macky Sall yàlla na yàlla taxawu ko. président Macky Sall yàlla na ko yàlla jàppale. soo wéetee na ko ñaanal son excellence ñëpp a nga koy ñaanal yàlla mënoon na ko def feneen de waaye def na ko ci diine ji def na ko ci tariqa bi yàlla ko fi yàlla bàyyi. allahumma amin ah macha allah loolu moo am solo bandiraaɓe sehilaaɓe on njuuraama on calminaama oɗon kalne weltare hannde ne l'islam dañi weltare ne sénégal dañi weltare ne dakaru dañi ɗo e quartier boppo juma ceerno alhaji mamadou saidou radiallahu taala anhu allah hannde timmitini e junngo ce men ceerno ahmad tidiani ba yo allah junnu balɗe makko yo allah moƴƴina battane makko yo allah renmo ya barke nelal allah sallah alih oɗon nganndi ko ceerno allahji mam saydou kala ko ɗaccuno gotel o watti ɗum temedere walla o watti ɗum ujunere kono noon eɗen jettanamo allah eɗen jettana allah kadi président makky sall juma ka hannde so wayini so uh, allah timmitini ɗum e lefu a président sall ɗum ko yettande allah président makky sall yo allah yommo yo allah yo allah tawnumo ha kala ko yiiɗi fof e leydi allah waɗanamo ɗum ya barkenela asa sallam eɗen gandi wona kaɗa juma rek juma ji kewɗi e sénégal o timmitini ɗum o darni ɗum ha jumaji ɗi mbayi no hay goto sikkano juma ene wayi noon e sénégal hande enen en gonda ko juma maroc en gonda ko juma égypte en gonda ko juma hay makka kala juma no wayte aduna rek jumaji men ɗo e sénégal wayi noon en jii jumaji kewɗi darde makko ɗe o dari hen yo allah yommo moƴƴere ya barkenela sa sallam inchallah eɗen ɗo e kabir tv eɗen kollira kala ko foti yaltude e ñalawma hannde o guila e juulu e tertango président de la république e e hadratul ɗo ha futuro inchallah enen ɗo kala ko foti hollirede inchallah men kollu eɗen jettana allah noon mouhamadoul kabir sene ah, foof ko kanko mouhamadoul kabir sene yo allah yoɓmo yo allah darnumo omon to e amérique kono hakkille makko foof nan ɗo ko kanko waɗi feere e moyen ji makko ha ɗum ɗo foof wawi wonde wassalamu aleykum wa rahmatullah xam naa ni rek inchallah dañuy xaar rek bu ñu ba pare fa seenoo jël yëpp nag danañ jël nodd gi danañ jël bi am na solo danañ danañ jël julli gi incha allah suñu paree incha allah waxtaan yi fi kilifa yi war a waxtaanee yëpp danañ ko jël bu nu paree incha allah xadaratu jumaa bi dinañ ko jël defe naa ni mbedd yi sax ñi ngi lal basang yi pour préparer xadaratu jumaa bi incha allah kon daal ñu topp ci Kabir TV suivre rek du ñu bàyyi dara lépp lu xew tey ci ubbite jumaa ji dinañ leen ko wan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح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 ودار مصائبة في كل سرور عزيزها ذليل وكثيرها قليل حيها يموت وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلا أحمق أعمى البصيرة والدار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى الله خير زاد وأكثر ثواب fatruku alxaflata fa ma baada alxayaati illa almamaat wa ma baada alwujdaani illa alfawaat wa ma baada alqusuuri illa sukna alqubuur in axsantumu axsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa huwa alxayu laa ilaha illa hu fadcuuhu muxlisiina lahu ddiin alhamdulilahi rabbil alamin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 wa taamiru daari lbaadiyati awlaa min taamiri daari lfaaniya wa baadiru bil acmaali saalihaati famaa inda allahi xayrun wa abqaa wa lahwu dunya asharru wa ashqaa fatuuba liman shagalahu caybuhu can cuyuubi nnaas wa bakaa calaa danbihi wa tarada canhu lwaswaas man camila saalihan falinafsihi wa man asaa'a fa calayha وما ربك بظلام للعبيد اللهم انصر دينك واهلك عدوك اللهم انصر دينك واهلك عدوك اللهم انصر دينك واهلك عدوك اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناد اللهم اردد عنا زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد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 الله أكبر الله أكبر الله yaa moom yow lépp lu Kabir di def yow la koy defal fépp fu mu teg tànkam ci Sénégal dem fa yow la fa demal ndax yaa ko wax ni ko lii ubbi nga ko waaye bul bàyyi benn kër sa ndigal lay doxe lii ñu ñëw fekk la fi nag ca lii sa yëf la yaa moom ñu bëggoon rek nga ndokkeel lu rëy lii nga xam ni dafa xew te kenn bénéfice wu ko lul samaam Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou ak lislaam leen di nuyu baax di leen ziyaara a ah, fa tabaarakallaahu di fii moom sama télé bopp la tele bii moom sama tele bopp la moo tax tabaarakallaahu di nuyu mbokk yépp di leen ziyaara ci xew-xewu diine nga xam ne tey diine moo ñu tax a ñëw te lépp rek njaboot ak xaaj Mouhamadou Saïd liggéeyam bu rafet moom la yàlla di wane fii ak li leen yàlla nangul mag ñi nga xam ne ci tariqa bi ñoom ñoo moom lii résultat wu li diine la résultat wu tariqa bi la jaar nag si suñu way ba suñu suñu sëriñ xaaj Mouhamadou Saïd moom nga xam ne lii yëpp liggéeyam la ba ci xalifaam bi nekk fii kon nag ñu ngi si kontaan bu baax di ñaan yàlla yàlla may ñu li fi am yëpp tuyaaba ji yàlla bu mu ñu ngi ndokkeel nag mbokk yëpp di ndokkeel suma télé bi Kabir TV di ziar Mouhamadul Kabir di ñaan yàlla itam yàlla may ñu fekk ñu fekkee liir yu bëree bëri waaw tabaarakallaahu El Hadj kon nag ñu ngi sant bu baax Mbaye jazakallaahu xeer. fi sunu sëriñ Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Tall tabaarakallaahu mu ñëwoon ci liggéeyu yàlla bii nga xam ni ñu ngi fii ci jumaa ji ci bopp fa tabaarakallaahu mag ñi sampoon fi sampoon ko fi mu yor tànku mag ña kon nag ñu ñëw fekk ko fi tabaarakallaahu mu sant ñëpp gërëm gërëm leen ndax liikat kat sampu mag la tabaarakallaahu kon nag. alhamdulilah ñi ngi sant bu baax Cheikh Kabir moom it fa tabaarakallaahu lii rek la ko Seyid Cheikh Ahmed Tijani Tall santoon ni ko na dajal këri diine yëpp waaye defe naa ni def na ko kon nag ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm ci taxawaay bi defe naa ni julli nañ jumaa ba pare alhamdulilah président son excellence monsieur président Macky Sall dugal fi ay kàddu yu am solo ba pare nag def lu am solo ci kër gi valoriser ko kon nag fa tabaarakallaahu loolu jullit yëpp la ko defal kon ñu ngi koy ñaanal moom président li mu bëgg lépp yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun amuñu dara lu may diine képp ku yëg diine rek ñu yëg la te gis nañ ni président ku yëg lislaam la ku yëg diine la ndax lii mu def nii tey tabaarakallaahu defati na lu rëy kon yàlla na yàlla fay ko te li bëgg yàlla defal ko ko fa tabaarakallaahu kon nag lii rek lañu ñu woon di leen koy jël sil incha allahu taala li mu des nag mooy xadaratu jumaa bi des na tuuti ci kanam incha allah bu ñu defee xadara bi ba pare nag dem ci kilifa yi nag ñu def ñaan ñu doog ko teg waaye li fi xewagul daal macha allah lislaam daal moo bénéficié lii waaw. mag ñi ñoo bénéficié lii sunu maam Cheikh Al Hadj Omar Foutiou maam Seydi El Hadj Thierno maam Seydi El Hadj Malick ak jullitu yàlla yëpp kon nag ba ci kanam incha